yaraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Luc Nicolaï ma ñu jàppe ca Mbour dëgloo ko ca Mbour yóbbu ko ca prison ba ca Saint-Louis cueilli à Mbour entendu par le procureur Luc Nicolaï déféré à la prison de Saint-Louis la sunu làmb xëyee maître Boubacar Cissé may avocat la mu xam ne mooy c'est un coup pour la lutte li ni mel lu méttee métti ne Luc Nicolaï commencé na grève de la faim ca prison ba la ko waral nag ñaari mbir yi képp la ba ci njëkk mooy ba mu xam le ne dafa purgé ma peine à mort ñaari at yi ñu gàlli sama ndodd mbuur laa ko bëgg a jeexale mbuur laa ko bëgg a tëdd ba mu jeex tàkk beneen ba mu ca dolli mooy je pas de parents à Saint-Louis Saint-Louis fi mbokk aw fi xarit aw fi benn jege ñaale kon nañ ma yóbbu mbuur journal ba xam le ne jàpp googu ñu ko jàppe ca Thiès yóbbu ko ca donte jàpp ba neexu ko waaye la ko gënal mooy ñu bàyyi ko ci mbuur ñaari at yi ñu ko war a tëj ñu tëj ko ko ca mbuur moo ko gënal ak làmb ba ñu déggee ne jàpp nañ léegi Nicolas seen xel ci benn la nekk comment sauver Modou Lo Ama Baldé combat bi nga xam ne léegi Nicolas taxawal na ko bu yàggul nan la ñuy def ba sauver bi le combat journal ba xam le ne moom léegi Nicolas sauver arène bi bëree te neen yi moom moo ko taxoon a jóg moo waral mu topp ci ginnaaw Modou a journal ba xam le ne stratégie yi benn la Willy Nicolas ak structure Luc Nicolas Enco bi yëpp dañoo motivé leen motivé mooy jàpp ba ñu jàpp seen patron même ci Buzz Pro may doxal pay-per-view sax motivation bi ñu am mooy doxal combat bi na mu waree ni ko bëggee woon ñu defe ko noonu ba bégal amateur yi ba rax ca doole ne ñoom taxaw nañ temm ngir résultat ci Luc Nicolas séntu woon ñu yóbbu ko fu kawe njortam bu ñu jàllee ci Iba Mar Diop a ñaari mbër yi yëpp bëgg a yéeg moo tax mu doon un duel entre deux ëllu beneen duel ba dimanche la diggante Serigne Ndiaye 2 ak Libidor ci stade Iba Mar Diop le journal ba xam le boobu mooy une affaire de technique yi Serigne Ndiaye 2 ak Libidor ñëpp xam nañ leen à travers la lutte sans journal ba xam ne loolu combat ñi ne la combat du ko gën a rëy Serigne Ndiaye 2 le 10 mai la gëj a bëre Ndiaga Sarr bu école de lutte Mor Fadam waaye te lutte sans frappe moom deful année blanche ndax ñetti drapeau la tegle ren bu dee Libidor moom ñaari année blanche la tegle fas yéene dellu siwaat ren le 8 janvier 2017 la daan fakkale junior le 20 mai 2017 mu amaat beneen combat daan Mamadi Ndiaye ba mu jógee foofu ñaari at da ko année blanche bu ba xam ne ne ñaari techniciens yëpp dañoo war a dellu siwaat ren bëggal seen bopp bëggal seen a moom Boy Niang 2 ne damaa bëgg ñu xool ñi Balla Gaye daan xool ma xool leen ay adversaires yi Balla Gaye xool ma ndax bokk naak ñoom Balla Gaye seytaani xeer dootu ko defati dégg naa muy wax ci sama papa di ko manqué de respect waaye man du ma ko manqué de respect papaam sama papa la biñu ma suspendre taxaw na ma ba ñu gracier ma loolee moo tax du bale su ma ko wax dara ndax lu ma ko wax sama bopp ko wax waaye loolu muy wax naan doomi mbër doomi mbër amul sens ndax moom Balla de ñi daan ñëpp duñu ay doomi mbër benn ci Bombardier mi ko mi ko daan du doomi mbër a kon buy wax ay doomi mbër fii daan booy ñaa jël bu leer nañi man booy ñaa ku ma mën a daan dëkkul géej waay te moom Balla Gaye dëw comme ko wax ji la féete woon dama xaar foofu ñamal naa rakam saa gës moom moo ci des bu dee Gris Bordeaux moom aw ma lu ma koy wax ndax mbëru troisième la Malick Niang bi may dégg du ma ko xoromal sax bu dee Tapha Tine ragalu ma ko tàppitu ma ko Ama Baldé sama frère la sama lépp la te combat ak Modou Lô danaa ko jàppale ba mu xam ne jàppale naa ko bu ma woowee danaa dikk bu ma woowul danaa dikk buñ demee ca combat yi taxaw dañuy jàpp diggante Petit Lo ak Ahmed Lacros ma ñu jàpp le 11 janvier diggante Pakala ak Dia Oil moom it taxaw na diggante Njalabaan ak Boy Rouge 2 moom it taxawal nañu ko bu ñu jàllee ca sunu ramb d'or 2019 dañ fay fekk écurie Yoff ma war a jot trophée tey ci samedi ji journal ba bu trophée soirée de fête à Yoff loolee la journal ba xam le ñu ne mbooleem feccikat ba umu taw ne ku ma ko dëgg dama mat journal ba xam ne ne la fête sera belle tey ci Yoff dana mel